wàllu comportement yeneen yu ci aju njàngatu Abdou Aziz Sow cib ndorteel ba rupture lañ waxoon waaye ndax rupture boobee am na ci assemblée nationale bi loolee la ñoo te ginnaaw bu plénière bi jeexee tàmbalikook cib heure bu ñoo joxante woon di 9 heures jëwriñ bi dina toog ci waxtu woowee waaye ay député yu bëri balaa nga leen a teg bër rek 10 heures jot ba tegal am ñeneen ñoo xamante ne doo leen tegi gëtt ci plénière bi te moo ne day nee nañu askan wi la ñu fa teewal ñeneen di xaar ba mbir ya tàmbali ñu dugg mun a perturber liggéey bi yu ni mel balaa ñu kaa gën a nemmeeku rek ñu tàmbalee jàng rapport bi ñenn ñi naam di ko teewlu waaye ñeneen moom foofa la ñuy xaar ngir door seeni waxtaan taal seen portable wala sax nekk ci seen tablette fàtte ni lu soxal askan wi la ñoo waxtaanee temps de parole yi moom fekkee ko lu ne la donte ñenn ci député yi dinañu waxal seen askan ñeneen ñi moom may ñi wax ñenn ñi xuloo la ñu ko jàpp téesante ak ak ŋàññante gone bu nekkee ci dëgg bu nekkee ci dëkk war am yar day fekk ña ko jiite am yar wax ju ñaaw xamuñu ko sunu biir parti di wax ne xasit du xaste fii senegal la ñun ñëpp xamante nañu. yenn ci député yi donte sax seen temps de parole danañu poser seen question waaye nag tontu ba duñu ko fa xaar ndax bu ñoo paree dañuy génn dem seen yoon ñu caa nemmeeku yenn comportement yu doy waa mu mel ni boo ko gam-gamlee parler de rupture et de bonne gouvernance vous ne comprenez rien nu ñenn ci sénégalais yi gisee député bokk na ci li ñu fi ràññeeku nekk assemblée yëkkati loxo wala tàccu voté loi ba ñu adopté ko waxtaan ba gën a jolli mu mel ni du ñoom ñoo fi nekkoon di xaxarante lii nag loolof di tuddee.